طلعت لنا شمس الهدى والقرآن sopp Seexu Tijaan بها هم يلبسا إلى

la oh, oh, oh, gent bi foofu Seydi Hadji Malick dëkk na fi vingt ans fii mille neuf la ko sanc vingt deux mu jóge fi di ñaanal sarak ju baax ji muy Seydi Ahmad mi nga xam ni moo sos lii di ko siyaara di ko ñaanal di siyaara it seen doomu bàjjen bii nekk fii bëgg leen lool di leen dimbale ci lu bari ngeen di ko dimbale ci lu bari muy soxna Aysatu Jóob mu soxna Asiyatu Malik bintu Seydil Haj Malik Si nga xam ni tey 1920 la gane àdduna ci kër gu mag ci Tiwaawan jàkkaarloog sawiyim Seydil Haj Malik ko tudd moo ko feral moom soxna Aysatu Jóob mii ba noppi it kaamil ba nga xam ni soxna Asiyatu Malick yoroon na ko Seyxal Xaaj Malick ci bi mu demee ba magee di ko daareel bàqare ba mu ne jiyanti Maodo di déglu waaw boobu tàng lañ naa def bii saa soxna Asiyatu jël di wax muy dégg ba mu jeex moom itam ñu ngi koy siyaara ak rakab jooju tegu ci ko fa tabarakallah ahsanul xaaliqiin kon na allahu ñi nga xam ne daa yu déglu wax te njariñoo ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa sant yàlla rek tabaarakallaahu lépp àgg na tegatuñ ci dara waaye mbokk yi innal umura bi xawaatimiha mbir yépp yëpp mu ngi ci jeexit ba bu ñu toogee ba waxtu yi bu ñuy yàkkamti di faral di jóg dafay tax la ngay wut du sotti waaw ndax mbir mën na tàmbali ci neex dem ba ca biir mu yi mooy dem ba ñuy bëgg a tas xaaroo ñaan gi nga jóg dem mën ngaa tardé it fekke mujj ga fekke lépp ba tax na bu ñu toogatee sànq niñ ko waxee woon ak yonent bi bu ñu yàkkamti bi maam Ousmane ñëwee moo Abdoul Aziz Mbaye bale feddli nañu loolu ci waxu ki wër gi Cheikh Alxaaji Abdoul Aziz wala waxoon foo toog rek yaa ngi toog ak yonent bi waaye nga yëkkati xasida boo xam ne maam Ousmane laal na ci ba tax na kon ku toog ak yonent bi waroo yàkkamti ku toog ak ku mel ni sëriñ bay nag mën ngaa yàkkamti waaye ku mel ni yonent bi nga yëg ni mu ngi ci sa biir doo yàkkamti kon yàlla na ñu yàlla defal tawfiq lii yàlla na yàgg te sax yàlla saxal ko ci sunu loxol sëriñ di Sidi Ahmed wax naa ko ba tàyyi bàyyam daf ma waxoon ni boo bëggee àgg ci ci sa maam Alaaji Malik am ci ngërëmal yàlla bul toog ci sa lalu doom kon sa lalu doomu sëriñ nag doo ca toog waaw te loolu rek moo fi am nga defee nag gàmm gi ñu ngi koy tëj liñ koy tëjee mooy ñun ñëpp gis nañu ni Sénégal mel waxuma ci wàllu politique mais ci wàllu jikko yu ñaaw kenn ku nekk ci ñun am nga ci part de responsabilité seen doom ji léegi di Souley Ba Souleymane Ba wax na wax ju rëy yoo xam ne ñun ñëpp waroon nañ ci bàyyi xel ci li Maodo wax dafa dem ba nekk rasulillahi du wax ju ëpp du wax ju ëpp de ndax kullu muslimin rasuul jullit bu nekk ndawal yonent bi nga jullit bu nekk ndawal yàlla nga ah inna ja inni xaal inni jaayun fil ardi xalifa kon kenn kuy def laasim ñaata nit ngay doon da ah benn fardan ah, ah fardan ah fardan wadkurhu yadkurka fardan fard bi dikk na ci laasim bi wa aw la daa mala nag ca wasifa wa waaw waaw bari na ah ñoom ñoom dañu def lépp lépp ba tax na kon ñun ñëpp ñu bokk jàpp bu baax a baax euh, Seydina Muhammad dafa xamoon luy responsabilité xam ñi ko yàlla booleel kenn ku ci nekk bi nga ñëwee jaayanteeg moom fu mu war a jaar ak yow loolu di responsabilité mu xam lan mooy njaboot loolu di responsabilité waaye mu xam nag mission bi ko yàlla dénk ba responsabilité la yor diina ji ban responsabilité la yor moo tax euh, li ngeen wax sànq doy na waar ci responsabilité dafa diis xam nga góor gi dafa am benn bis mu ne comme li ngeen wax nii xalifa mu ne sëñ Babacar nu nu ma tudd ma ne ko Abdoul Aziz mu ne déedéet li ma dab ñu ne ko xalif mu ne yëg nga ni ginaar gu feebar Tiwaawan man la ko yàlla di laaj ci responsabilité Abdul Aziz benn benn nit a ngi nii musta tàqaliko musta tàdd julli musta tàqaliko tudd yàlla waaye mu tëj mu tëj benn muus bàyyi ko mu for yi jox ko mu lekk ba mu dee safara la jëm nit a ngi nii di soxna moom itam waaye yàlla nattoo ko moomul boppam taxawaalu waaye mu romb benn xaj bu mar bay appaat mu jël dàllam def ci ndox jox ko xaj ba xaj ba naan yàlla jéggal ko tàbbal ko aljanna kon responsabilité lu diis la moo tax Seydina Muhammad daawul def musaawama ci diine gis kuy bëgg a diit waxta toroxal diine muy nangoo toog ak yow ci béréb daawu ko nangu waaye te diine ji fi mu toll exact exact ñun jullit yi ñoo daaneel diine xamuñu li ñu yor nañ dellu siwaat xam responsabilité bi ñu am ci diine bu demee ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dem ba toog ba ñëpp bàyyi ko nga xam ne ñëpp ngi koy tëkku pour rey ko desewu lu dul doom bàyyi taxam bàyyi taxam dem ba yëg ni moom kat lii gaa ñi bëgg mu ngi leen ciy bëgg a fekki dara desul kon lu dul rey yonent bi mu ne wallahi yaa am law wadaahu shamsa fii yamini wal qamara fii yasaari buñ demoon ba jël jant bi teg ko ci sama ndeyjoor jël weer wi teg ko ci sama bàmmoñ pour ma bàyyi lii ñu ma lii ñu bëgg ma bàyyi ko te moo di diine duma ko bàyyi lu dul dafa feeñ wala yàlla alak ma kon diine ji toll na ci Sénégal foo xam ni ñun ci suñu bopp ñoo war a jël suñu comportement bopp def li yàlla bëgg bañ koo séenooti ci kenn wax ngeen fi kii wax na léegi wa zalimin wa muna wazi wa najjini minal waaye waman xafaw moo tax bi ne tubaab yi nekk nañ fi defu ko fi waaye ñi jaar ci tànk tubaab yi ñoo wëlbatiku def la tubaab yi waroon def moo tax seen maam Cheikh El Hadj di ko doy waar aoudu billahi min charri lkufaari wa min charri Seydi Hadj Malick ku yéeme la Hadj Moussa wa min charri sum waaw summa di xaqadin fammin wa aynin wa aynin wa shayatini wa zalimin wa munafiqin wa di waaye wa man tafassaqa yaa rahmaanu min annasara tubaab yëpp dugg si nag mu ne waaye dem nañu bàyyi ñu fi de waaye ñiy xeeñ seen tànk ñoo leen yées te dëkk ci dëkk bi kon yow yàlla yàlla ma musal ci ñooñu itam ñiy xeeñu tànki te toogaat seen place ñoo ñoo fi yées moo tax kër gi dañuy def erreur amuñu droit ci jéggale lu yàlla moom amuñu ci droit jéggale yàlla moom kenn amu ci droit kenn amu ci droit da ngay tuubal yàlla yàlla jéggal la rek waaye jéggal naa la li yàlla moom déedéet gàddul sa responsabilité ci li nga def te bàyyi yàlla ak li bu moom moo tax jullit bu fi jéem juum tooñ yàlla sa digganteek sa boroom la kon li ñuy ñaan mooy ñun bokk yi nañ buñ demee nañ defarwaat col gi ñaaw na te lépp fëgg jaay la maamu kii di Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz daana wax ni sëñ Babacar dana dem ba mbalitu tubaab yëpp dana ñëw ci ñun mm-hmm. oto yeeg yëpp léegi xale yëpp a ngi dem fëgg jaay di fëgg di sol dem nañu bay jaay loo xam ni day yokk kanamu jigéen dem bay jaay loo xam ni day yokk kan ginnaawu publicité ko ci télévision Sénégal doomi jullit yi di ko jënd ba tax bu ñu naan euh, euh, waa ji dafa tooñ doomam mook doom ji ku ci tooñ moroom ma ah? doom jee tooñ doom jee sol col gu bon dikk ci moom tàngal yaramam moom it bu seral yaramam col gu bon la sol ñaaw na di sol loo xam ne lii da xoolal damay naan xoolal xoolal rek kii sol pantalon ak chemise teg ci vestam ak yëpp ñëw toog yow nga dem sol loo xam ni dagg. war ngeen ñaan. waaw comme am ngeen istixlaal. Mm-hmm. war ngeen ñaan yéen ñi nga xam ne yéen la yàlla teg ci kanamu lañu gàtt complexe bi metti na képp koo xam ni sénégalais nga bu juddooti ñaari sénégalais jur la boo takkee jabar tubaab. war nañoo def décret par loi ni amatoo laaj bi waaw xam nga dafa mel ni ñun indépendant ngi si nu ñuy bëgg a xeeñ dafa mel ni indépendant mu ngi ñuy bëgg a xeeñ a ñu tàmbalee woon teg ci B teg ci C ñu ngi jëm yàqu Abdoul Aziz moo tax ñun ñëpp dañu war a formé waat ñun jullit yi suñu njaboot ñu ñaan leen ñu dimbale waat ñu njaboot gi dangeen ñuy dimbale te yàlla tax ñu soluwaat col gu baax génn xoolal rek buñ ne man damay xool xale yi nu ñuy demee ci jàkka ji te yàlla ni xudu zinatakum inda kulli masjid ñëpp war a solu col gu baax col gu yiw looloo fi amoon Sénégal yi boo gis ko fa yiwoon dox dox dox gu yiw Eh, waaye léegi kenn jombatul dara lépp a bon léegi lépp a yàqu bu ko defee nag man loolu rek laa ci doon sànni ginnaaw loolu nag ñu gërëm Sidi bu baax a baax waaw waaw gërëm Sidi Ahmed bu baax ndax lii responsabilité la waaye mu gàdd ko mënoon koo yemale ndakaar wala Tivaouane waaye mu indi ko ba fii nga xam ni fii la Seex Alxaaji Malik moom dëgg-dëgg te it mu ñaan fi ñaan goo xam ne gi kenn werantewul ni mu ngi nangu ba tey ku fi indi ñaari xel nag sa dara du baax ki mu ko ñaana ko am ah te mag ñi taxawoon ak ñoom ñëpp de nee nañu ci mujj dundam waxam mooy jagsaaw faas jagsaaw sama yéene àggu ci lu ngeen bu ngeen dundee lu ci waay mën ko def ngir ñëpp nee nañu Maodo dénkaan moo tax waa faas mbay ci sa jàppale leen kii bàyyi lépp ñëw jàppale leen jàppale leen ki bàyyi lépp ñëw jàppale leen te te ñu jéem a tàppe xol yi jot na nag tàppe xol yi jot na wallahi jot na bu leen toppandoo tiwaawan ci la ñu nekk dimbale leen yàlla ngeen tàppe seen xol yi waaye di julli ay ati at te julli fii rek la xewe fii rek la xewee di julli ay ati at te mosoo julli fii rek la lu ngeen xam ci koo xam ne kii lu mu wax du ko def nu ngeen koy tuddee kon jullit yi ay fen aha damay naafi la foofu rek laa koy tënkee damay naafi la ñëw di julli ma julli bi agsi ci iyaaka aabudu du loon ngeen jàng ah jàngu leen aabudu jàngu leen iyyaka a'budu lu ngeen jàng kon yàkkan yàq yàlla julliwul ci yonent bi rek la julli waaye iyyaka yow dong naabudu fas ñaata jàkkaa fi am benn ñaata jumaa fi am ñépp fa la iyyaka na'budu munu fee sottee wa na nasta'inu munu fee sottee ihdina munu fee sottee assalaamu alayna munu fee sottee booy génn ci julli gi assalaamu alay yow mi doon julli kon loo dese joxe nga ko toog luy safaan ba nar a dal te ñoom ñu mucc kon ànd leen ak Sidi Ahmed propagande mu pour moom bu doon alal rek la mën na ko wute ji fu nekk te daf koy am waaye lii di waxu ko defu ko pour alal daf ko def pour sagal baayam mais sagal waa Fass ndax mënoon na ko defee jag saaw waaye sagal fii nga xam ni mooy buntu jag saaw kon xale yi mag ñi ne ñëpp àndaat groupe yëkkati seen dëkk xobul xobbul yi nit fa muy fanaan di fa yeewoo bokk na ci gëm yàlla kon ñun ñëpp dëgg la Seydil Hadji Malick ak ak ñi nga xam ne ñu ngi ci biir Sénégal tey ay kilifa yàlla baaxee ñu leen ba ñu toog fii li ñu amoon yëpp ñu sotti ko fi ñi fiy ñëw kenn ku ci nekk mën na indi participation mais ñun ñi fi dëkk nañ jël loolu def ko ala wacci ala waccil ixlaas yi dafa mel ni nag boo téye micro da wax da ngay xaste te waaye lii ma leen wax mu nga ca biir Tiwaawan laa leen wax mu nga ci biir njabootu Cheikh Al Hadj Malick waaye du tax nag yàlla bëgg ko du tax mukk mukk bu Seydi El Hadj Malick wàccoon ba sonn it du tax yàlla bëgg ko yàlla moom bu sañoon ñéppay ànd waatasimu bi hablillahi wala wadkuru nicmatallahi alaykum id kuntum aadaan fa allafa bayna qulubikum fa asbaxtum bi nicmatihi ixwaana Hadj Malick Maodo si daf may wax naan sëñ Babacar innama almuminuuna ixwa lu neex a firi la boo gisee te Abdoul Aziz Mbaye bu ko ne Abdoul Aziz mbay da nga ko yaa ana eey man loolu mooy innamal muminuuna ixwa moo tax seen góor ga sa turandoo daal na wax ni bu la boo joxee nit loxo mu jox la ne la foo boo ban nga bokk nee na rocci loxo seytaane dikk na kon mbokk yi ñun ñëpp ñu àndaat xool Sénégal ni mu mel Sénégal ni mu mel neexul yàlla neexul yàlla te du neex yàlla mukk te it mbon gi bu yàqee da mbon gi bu yàggee da ngeen naan mag ñaa ngi fi yàlla nangam yàlla xamul lool de bu mbon gi ëppee rek yàlla alak ñépp mu ngi ci xadisu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu wax ko kon daje nañu gàmmu gi neex na waa faas duggante leen ci seen biir bu ngeen xëyee kenn ku nekk jox sa loxo sa moroom baalu ko xàq yéen ñi ñëwit ku dem sa kër fekk am nga fa problème boo demee joxeel sa loxo jéggalante ñu jéggalante fii balaa dara xew ëllëg defaru fii balaa dara xew ëllëg lii xew ci Tiwaawan xew na kër Seydina Cheikh xew na fu nekk waaye nag taxul mu mu neex yàlla inna alladina farraqu diinahum wa kaanu chiaan lasta minhum fi shay ko defee politique bi fi duggoon defarwaat leen dañ fi jaaroon rek seen oto bu paan Habib Sy laa dégg mu naan oto bu paan boo ko poussé ba borom dugg ca danaan la jërëjëf dem bàyyi la yéen a fi des di ay bokk waaw du tee nag ixtilaaful aimma la ñu wax raxma ci xam-xam ak lépp ko defee nag ñu dekkalaat fas jàppale Sidi Ahmed daara yi dekkiwaat comme mu ngay dekkal fële ci jag saaw xale yi jàngaat ndax njàng Seydina Muhammad bi alquran wàccee lu mu ko wax ah iqra kon ndeke ku jàngul mënoo yanu te fii nag njàng rek la xamoon xam-xama fi nekkoon bu wér boo demee ci kër sama mbokki kebe-kebe yi fa tabarakallahu ak feneen ak feneen xam-xama xam fi nekkoon pire waaye léegi yooyu yëpp dañ ko bëgg a teg fa la ñun si euh, su lay wax na ko sànq ku jàng alquran doo tekki la wax waaw ku jàng alquran doot alquran nag bàyyiwul dara alquran dafa bàyyi dara kon nag faas uudi faas faas laa wax uudi faas dellu sil ci sa ndigalal boroom toppaat sa diine toppaat sa lépp sa Sidi Ahmed mu ngi sant sunu mbokki service bi ñëw taxaw ca soo ba léegi ñu ngi taxaw ñun ñu toog ngir sunu jàmm ñoom it ci dëgg-dëgg waa sapeur pompier ñëpp a ngi fi seen daarul xabib bi te ñun ñu ngi ci xabib kon nañu bàyyi ñu waxtaanee xabib ba pare ñu tegal ñu daarul xabib ñu ngi ci xabib di waxtaan ci xabib ñu bëgg ñoo tegal daarul xabib nañu bàyyi ba ñu waxtaan ba pare ñu tegal ñu daarul xabib Abdoul Aziz yéeme na téléphone yi yóbbu na lépp léegi téléphone yi yóbbu na lépp te senegal yàqu na léegi defee nag yal nañu yàlla jàppale euh, Sidi Ahmed yal na yàlla guddal fanam yàlla yi ko sutura ni mu mel rek la mel tabaarakallaahu amul benn dangar waaye nag bu tax nag bu mu tax nag kenn yéeg bu mu tax kenn yéeg de bu mu tax kenn yéeg Cheikh El Hadj Abdoul Aziz daan wax ni ah bàyyi leen ma nii ma mel ma mel ni rek. waaye leen waaye bu leen mel ni man mukk bàyyi leen nii ma mel ma mel nii ndax man mën naa ko attan naa ko mën naa baale xam nga damay wax nii famille bi Seydi Hadj Sëñ Mbaye Mansour kenn gënu ko waxuma ko nag pour pour tagg moom loo ko def mu wax la ko bokkul ak ñun ñoo xam loo ñu def nag ñu noppiwaale ko waaye sëñ Babacar loolu mooy nit Abdoul Aziz boo nekkee nit loo ko def rek mu wax la ko waaye def ma dara mu naqari ma ma fat ko ci sama xol rek nga defa yaa nga ca fekk na maa ngi ko fat ci sama xol wala Cheikh Alhaaji Abdoul Aziz loo ko daan def rek moom it mu wax la ko ci saasi am na ñoo xam dafa leen koy wax ci saasi ci loolu mooy nit ke defee nag damay wax ni sëñ Babacar Mansour it ku baax la fa tabarakallah fa tabarakallahu yàlla na yàlla def tawfiq waaw waa télé yëpp Abdoul Aziz fa tabarakallahu Abdoul Aziz kenn du ko présenté kenn waaye ku bëgg li mu doon la ku bëgg li mu doon la Abdoul Aziz Euh, ku bëgg li mu doon la fa tabaarakallah yàlla na ko yàlla taxawu euh, bu ko defee nag ma jox maxtaar mu ñaan ñu ngi sant waa Fass yi bu baax waxtaan wi waxtaan la rek waaye du dal du dara rahmaani rahim maliki yawmi diin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wa lad-dallin amin allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliqa والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم مقداره عندك العظيم يا الله أو كالذي مر على قرية وهي قاوية على أروشها قال أن يأتي الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتطن وانظر إلى إمالك ولنجعلك آية للناس wanzur ila al-insani kayfa nunsira summa naksu ala man falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir allahumma ij'alna min ahsani ibadika indaka hasan wa nasiban fi kulli taqsimu waj'alna wa iyyakum wa iyyakunna min at-tiyaniyina al-mutahaqqina al-mutamassikin bi sunnati nabiyyil mustafa wa bi tariqati shaykhana tijani wa bi yari shaykhana al-hajj malik ali didal malik subhana rabbika rabbil